alxaajo malik ako jaadu alaaji malik la nutle bis bi de mi bay alaaji malik si alxaajo malik xabau malik ma lam yu lil kuramaayi kenn du seen maam mawdo moo tax seen ma seen bay alaaji aminta si ñaan ko alaaji malik si ñu tuddee ko bisu alaaji malik jombu ko alxaaju malik man xaaju malik mawdo yu biinu salik yawma nidaayi kenn du seen maam mawdo alxaaju malik xabaau malik maalam yu malik lil kuramaayi bay alaaji si ndeysaan yeloona lu tol nii ci kër gi alxaaju malik mawdoy tarsul mahalik waqaawu malik saral awalik seen maam dere seen baay alaaji si derese na fi lu bari ci kër gi bari na ko naroon na sànku moo la téye ba tey nga am teraanga ci kër gi loolu yombu yombu ko ci kër gi xalifa babacar wala qad qada bayna siyoqiye maqaamo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 ñu bari xamuñu ku ñuy fàttaliku lu ko waral wante yonente bi àdduna ci zakiru maxasina mawtaakum bis bi ñu jublu ci la bokk ñu tudde ko nag ku màgg ku tedd ku yiw koo xam ne nun ñi ci daara Cheikh Mouhamadinil Mansour am na ñoo xam ne buñ fi dese ba léegi ci moom am na fi ñoo xam ne ñi bu ñu demee dellusé ci moom fa tabarakallahu ndax fi mu féete woon cheikh mouhamadinil mansour moom bay alaji si ma sëriñ bi masaane yónni mbaa am ku mu ni su waajee ba pare balaa muy génne lu mu xat-xat mu dem tàggu yaayam moo tax ñu di ko wax alhaaji fi amint tur wuy na boroomam ku fonkoon waajuram wu jigéen la ku fonkoon njabootu Seydil Hadji Malick la la siyama daara Cheikh Mouhamadinil Mansour mi nga xam ne mooy péeteem mu fekkante fa nag ak ku tedd ku yiw Baye Ousseynou jiite mu boole ñetti tur yu nga xam ne benn bu ci nekk kun ya ci moom te benn bu ci nekk wuyoo ko al oustaz al imam alxaaji loolu lépp da ko ñaf ba yàlla baaxiku ko ci fa ma ko war a digganteem nag ak bay alaaji si fii nu koy waxee xaju fi waaye dana fi gën a yaatu ba ñépp xam lu tax njaboot gu tedd gi tudde ko bés bi sidna cheikh nekk ci kanam yore collectivité imam yi nga xam ne ñoo nekk Thiès mu nekk ci seen kanam keroog ba fa président ñëwee discours am ba léegi dafa nekk répétition ci discours yi imam yi ci àdduna bi waxuma la Sénégal mu fekkee fegoo ko xam ne nag itam fa tabaraka la asul na ñu di ko wax sëñ babakaas si mi nga xam ne Baye Alaaji si moom la ko tudde muy ku nga xam ne ku effacé wu la di nit ku yiw di nit ku tedd di nit ku neex a jëflanteel ah sàkkuwul dara ja bëggul dara ja wante nag bu dee lim ñuy dimbalee danañ ko ci boole fa tabarakallahu nit ku baax la kon bés baa nga xam ne tey jii le 6 la cheikh cheikh mii nga xam ne mooy Cheikh Ahmed Tijani ak waa kër Baye oustaz jiite yëpp ñu bokk d'accord ci bés bi tudde ko ko mu nekk le 6 te war a ñëw duñu wax ne noonu rek noo ko bëgg yëg dañu ko yaatal pour àddina bépp yëg ko ndax bésu ñëpp la moo waral nu daje nii di joxe ci programme bi di wax jamono ba ak buñ ci yëgsee incha allahu dana fi gën a yaatu ndax li ñu am ci waxtu wi yaatuwul waaye mën na noonu wax lu bare bari ci bay alaaji si ci wetu Cheikh Mouhamed Mansour si mën na noo wax lu bare bare bari ci bay Oustaz jiite ci wetu Cheikh Mouhamed Mansour si waaye waxtu wi mayew ko waaye suñu yegg fa ko waxtu mayee incha allahu dana fi gën a yaatu waaye daal ngeen xam ne ñaar ñooñu ñaar ñooñu ni yonent bi waxee ne Abu Bakrin Omarun Abu Bakrin wa Omarun ñu nekkoon ay sahabatu rasuul ñoom itam da ngay wax ne Baye Oustaz jiite Baye Alaaji si ñoom ay sahaba lañu Cheikh Mouhamadin Mansour wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi jéggalu alhamdulilah aouzu billahi min asheytaan arrajim bismillahi rahmaani rahim ah mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu islaam yi asalaamaaleykum di kontaan ci bis bi di alhamdulilahi rabil alamin ndaxte yàlla moo wax ne la in shakartum la azidannakum kon dañuy sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin di kontaan tam macha allah ci lii nga xam ne ni moom la Cheikh Ahmed Tidiane jiite def mi xalifa alhaji Ousseynou jiite kon ba ñu njëkkee réunion ca kër ga bu ñu waxee ci wàllu bis bi ku ñu koy tuddee dani moom xalaat na sunu bay alhaji si yàlla xam na ne ba mu ko waxee itam famille bi yëpp doom yëpp kenn tëgu ci ba loolu la rafet na loolu rafet na sër yi sax laaj nañu kan mooy alaaji si ñu leen bàyyi aadi si ñu ne ah loolu moom macha allah loolu rafet na bon mbir la moo xam dafa waroon a nekk moo tax mu nekk ndax xam nañu alaaji si ak sunu baay alaaji sunu jiite sunu bàyyi alaaji suñu jiite dawul jóg. di wax El Hadj Serigne El Hadj si ak Serigne Mansour seen diggante ak moom ñoom ñett daan na wax ne ñun ñett la woon ñun ñett man Serigne El Hadj si Serigne Mansour ci Tiawan ba ca Ndar ba ñu ñëwaat Tiawan lépp góor gi daan ko waxtaanee kon Serigne El Hadj si moom macha allah góor gi xamal nañu tam lépp lu mu am ci Tiawan ci loxoom la jaar man kooku ñun dañ ko amul njukkal. moo tax bis bi nag ñun ñëpp ñoo ci kontaan di ñaan nag yàlla may ñu ñu fekkee ko ñun ñëpp tal ko ah di am xel mu dal lool nag lool ndaxte am na mbir moo xam bu ko ay kilifa taxawoo rawatina macha allah suñuy sëriñ sëriñ lam toor toog na leen macha allah ah bokk ci bis bi loolu suñu xol dafay gën a sedd suñu taaw baytam toog ni mi sëriñ Babacar Sy aminta macha allah. suñu xol day sedd guy macha allah ak tam sëñ Ndiass mii nga xam ne xam nañ ko ci sëriñ Mansour ak sëñ Diop mii ñoom ñëpp ak sëriñ Cheikh bon ñun daal ci gàttal rek ah sëriñ Cheikh li nga xalaatoon lépp rafet na di wax rek ni la li ko Pape Faye waxee yaa raisul aima wal ulama fi iqlim Thiès président des ions et des ulama des raisons de Thiès yàlla ah joxaat ko beneen daraja macha allah bu nekk membre. ci union internationale des savants islamiques kon loolu yooyu yëpp ay cër la yoo xam ne nii barka mag ñi la barka mag ñi la du ci ñun de mag ñi ñoo ko liggéey macha allah ban suñu xool sëriñ kuy ànd suñu rak sëriñ Mahmoudan jiite macha allah ah sëñ aadi moom du ñu jeexal te tudd ñu ko nag ndaxte aadi ba mu ñëwee ci kër ga sëriñ Mansour jox suñu waajur man mii la ko sama féetali ñoo bokkoon benn lal bu ñu daan fanaan nag moom macha allah. waaye yàlla def nag sëriñ mii topp ci man moo nekkoon xaritam nag fu ñu daan dem ñoo doon ànd te aadi musta ñaawal lu dul rafetal ba mu fa jugee ba nii bon nag ah ñun suñu xol sedd na guy xam naa ne li ñu war a wax li Pape wax rek li ñu fi war a wax bari na lool waaye il faut ñu gàttal rek ndax dañoo toog suñu sëriñ man wax ji du bari wax wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. ñu ngi nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëñ Babacar si ñu ngi lay nuyu di la ziyaare ci su ci sa bi eh, di ñaan yàlla yàlla na ci yàlla def taw feex def ci barke eh, maa ngi lay wax léegi yëfi mag ñi la mag ñi nag li ñu yoree yàlla ko barkeel eh, wax dëgg yàlla dafa mel ni am na foo xam ne bu ñu fa àggee mag ñi ñooy conduireel seen bopp ndaxte mbir mi biñ koy tudd ci sunu réunion keroog waa Ahmed daf ma wax ni mbir mi affaire tuddee yi eh, ni man war nañ ko xoolaat bu baax a baax ndaxte mbir mi tam du ko jot rek ñu tuddee la ko ndaxte dafa am lu mu laaj bi mu waxee loo rek automatiquement rek mu mel ni alaaji si moo taxaw sama kanam yàlla xam na ko ma ni ko alaaji si rek ñoom ñëpp apprécier macha allah. Euh, man nag dafa am sax baatin moo ci yëg ndaxte dafa mel ni dama cee defaru ndaxte man dama ba ñu ne alaaji si ci semaine ba ca topp lañ ma jox nomination bu xaw ne bu am solo la waaw ci semaine ba ca topp wala yàlla xam na ko xam ma koo xaw a jeenee sax ñu alaaji si ma jékki-jékki rek ñu envoyé message ni ma union mondiale des savants musulmans bi nekk Qatar ñoo la jël membre actif man lii de lii lii du man de ma ni lii du man de wax dëgg yàlla waaw ndaxte alxuraan a ko wax walladina amanu wa tabaatuhum zuriyatihum bi imaanin alxaqna bihim zuriyatihim wa ma alatnahum min amalihim min cheyin nitu yàlla liggéeyam du du du dandu du jeex du du du du du dem alaaji si li mu liggéey ci biir Tiwaawan ànd ko ak sëñ du mus a jeex lool du mus a yàqu loolu du mus a ko mus a fàtte lii ñëw nii la leen dina ñëw sax waaye sunu devoir la ñun itam li fi way juri bàyyi ñu ngoy ci mm-hmm. yàlla dimbali nam nag ma ànd ak samay rakk ci lépp lu may dox rek samay rakk la àndal mm-hmm. ñu àndandoo xalaatandoo mbir mi mm-hmm. ñu ni daal ñun li alaaji si defal sunu wayjur te sunu wayjur daan ñu ko wax ndaxte bu ñu gàmmoon ba pare mu dajale ñun ñëpp nañu ñaanal suñu alaaji si bu dul woon boobu tiwaawan jafe na boobu tiwaawan yombul boobu tiwaawan yombul alaaji si moo ñu jox añ moo ñu jox reer lépp moo ñu koy jox ñun boobu doole amul yàlla xam na ko mais alaaji si lépp mooñ koy jox loolu nag bu ñu jógewaan Tiwaawan rek góor gi nañ ñaanal alaaji si ndaxte lii yombul fu ñu turne mu koy wax ba sëñ alaaji jël doomam jox ko alaaji Seynu jël góor gi ba ay di ñëwee dani ah man ne maa ngi sax maa ngi soog a saf Tiwaawan ndaxte deretu Seydi Alaaji Maalik Si dugg si na ci kër gi waaw ni deretu deretu Seydi El Hadji Malick si dugg si na ci kër gi kon moom maa ngi soog a saf Tiwaawan ñu ci ay yoon sam papa dem fi Màkka demati fi Màkka commission mi jël ko mu leen deretu Seydi El Hadji Malick si nekk ci kër gi wallaay am ni njiglaayam la njiglaayam la yooyu mu ñuy nettali nag moom la ñuy moo nekk ci suñu xel waaw mu ngoog fii la ko joxul dégg wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay kii rek te ñi ñi daan topp di ñëw ci dal bi dafa bari waaye ñëpp rek bu ñëwee dañuy xewlu cere yu neex ceeb yu neex macha allah ah yooyu dafa am solo di ah ta te dafa wax ni Serigne Mansour moo jël sama loxo teg ci loxo alaaji si ni ko alaaji si mooy sa bunt ci Tiwaawan loolu la ko wax alaaji si mooy sa bunt ci Tiwaawan boo ko toppee doo juum ndaxte loxoom set na xelam set na loolu loolu Samba da koo yàgg wax da koo yàgg wax ku fekkee jamonoom rek di nga di nga yëg ni yàgg naa wax loolu ci alaaji si kon booba ndukkal googu nag moom la ñu bëgg a delloo teg ko ci loxo xalifa bu tedd bi nga xam ni yàqul dara ci ndono way juróom ndaxte Tiwaawan gis nga événement bu am nii la ñuy àndandoo dem ci salle bi mooy ànd ak Serigne Cheikh gunge ko comme nag ko way jur yi daan gunge man bu ma gisee ci télévision bi dañ daan gàcce ngàllaama ndaxte seen papa nii la daan def waaw ah, waaye bu ñu ñëwee nag fekk fi Babacar mooy njëkk a ñëw jël Cheikh ñu àndandoo dem ci jumaa ja loolu bis bu nekk la ba keroog euh, burdu bi di jeex loolu nag ngeen di def moom moo fees sunu xol loolu la gëm te yéen suñuy sëriñ ngeen sunuy sëriñ ngeen moo tax ñu bëgg leen a roy ci lu baax loolu kon boog bis bi ñun dañ koo fonk dañ ko utal programme ndaxte incha allahu ci dañuy dem ci rajo yi rajo yi dañuy jël histoire euh, alaaji si aminte di ko wax dañ koy waxtaane ndaxte semaine bi gàmmu gi yëpp euh, Thiès euh, Bes FM Corkat FM Sud FM ak Thiès FM yëpp ku ci nekk dañ fay dem dem waxtaane ki nga xam ni moom la ñuy parrainer gàmmu gi su ko defee loolu tam c'est pour yëkkati liggéey bi nga xamee ne moom la alaaji si liggéey ci biir Tiwaawan te loolu ñun dañ koo fonk macha allah kon yàlla na la yàlla jàppale yaa moom bis bi ah yàlla defal la ci tawféex ci seen barke yàlla defal ñu ci ndam ñun ñëpp ci barke Seydina Mohamed wasalaamaaleykum wa rahmatullah ne daanaka daal amatul nuñ ciy wax ne liñ ci waroon a wax lépp ñi jiitu wax nan ko xanaa rek feeñal rek cofeel ak mbégte bi nekk ci Serigne Cheikh mii jëmee ko ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane mii jiite ak rakkam yim àndal yëpp ndax kat lii mu def ne sëñ Babacar si ne lu rëy ci ñun tuutiwul de ñun daal si fekke nañu dem am lu bari lu ñu fekke ne ci diggante Oustaz nu jiite ak suñu waajur nee loolu di dox nag ba tey jii ñu jël nag gàmmu gi ñu jël ko tuddee ko suñu waajur ah kon nag ñoom delloo nan nag mbattu ca ndaa la Serigne Cheikh Serigne Babacar si nee na jërë ngeen jëf ne njabootu alxaaji si aminte yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di ñaanal yàlla ndax yàlla dogal na nag ñun suñu wajur bari na lu mu liggéey fii ci xadara bi ne ci xadara nag Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu nee liggéey ko ci nag njabootu Serigne Mansour si borom daara ji yëpp ne si bii daf cee feeñ de mooy seen tuddee bii ngeen ko def waaye am na yu fi passé am na yu fi passé waaye bii nag moom bii nag si dafa ñoo ñor lool dañoo fekkee dem xam seen diggante ñoom ñaar kon nag su ngeen doxalee lii ah sëñ kër si nee na delloo ngeen mbart nag ca ndaa la nee na sunu xol sedd na ci biir su sunu xol sedd na ci biti lii daal bokk yi buñ ko toppee fii ba suba wax ji du jeex. ne Serigne Cheikh daan na wax ni. mbégte mbégte. mënta paase mbégte. kontante mënta paase kontante. lii ngeen ñu defal. lépp loo xam ne ni. sunu baay defal na ko seen baay. bisu tey bi fay na lépp. ne bor bi. ci ñun daal si la dese. ñun njabootu alxaaji Malick si aminta. waaye nag jiite yéen wàcc ngi jërë ngeen jëf ne sëñ Babacar si ne di sant bokk yëpp sunu nijaay Lamtooro Serigne Lamtooro say ngi nii toog ànd ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si ak Serigne Hadi Alxaaji Malick Diop Serigne Pape Faye ñii daal ñoo doon magu démb yi daan àndal nag sunu wéjur di ko doxal ay yónnent ne ci ndégalu nag man Mansour si borom daara ci radiyallahu taala anhu ne su ngeen ñëwee nag jëf-jëf ju mel nii ñun daal amuñu seen fay ne da leen xamal ni daal bu fekkoon ni rey nit daal dagan na ca bis ba kon daal fa tabaarakallahu ñu ñu teqit ku sant si indil leen ko xamal leen ni bis bi fi mu toll ci ñun wallahi ne kontaan nan bu baax ne alxaaji Moussa si mi ngi nii fa tabaarakallaahu di rakkam di léppam di soog a dugg si nag kon daal dañuy jox Serigne Cheikh Ahmed Tidiane mu ñaan ñu xaar nag incha allahu ba la bis ba ba la incha allahu ne di sant nag sunu rakk ji ne di sunu doomu ndey di sunu doomu baay di alxaaji Mbengue Diop Ndokh TV ne maamam mooy sunu lépp. ñun ñi ñëpp man nañu wax ni ci suufu maamam la nu gane àddina wala si ne booba léegi moom tamit yàqu ci dara Jóob El Hadj Serigne Babacar ne ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax yàlla na ko yàlla may ay télévision yu bëree bëri bëri ak ay rajo ne lu mu taxawee nag fii ci xadara bi ne asalaamaaleykum jërë ngeen jëf bismillah alhamdulillah waxtaan bi dinañ ci bismillah àggale ci alhamdulillah la ca des nag yal na ñu yàlla may ñu fekke ak tal xéewal la xéewal la yiw la yiw nag nekkul ci julli yi wa qawlu linnaasi xusnan aqimu salaata soog a ñëw xusnan jooju nag bokk na ci lii ngeen defal njabootu Demba Buna fa tabarakallahu kon yéen ñii ñëw seen Cheikh Ahmad Tidiane yal na yàlla fayal ñu leen lu rëy la de tuutiwul nag tuutiwul ci kër Cheikh Al Hadji tuutiwul ci njabootu ba bu na te ñëpp incha allah bu bés ba di ngeen xam ne li ngeen def rëy na ci ñun te fas yéene ni ñu ànd ko képp koo xam ne njaboot nga ci kër gi ñu ñëw ànd wettali leen yal nañ ci yàlla yóbbu su ko defee ñu ñaanaat ndax li yonent bi wax rek addu'a isa amma nafax gàllaa ju julit ñaan rek la ñaan la ñu am te mag ñi pare nañ lépp lépp baax na lépp baax na yal na yàlla fayal ñu mag ñi ñu jàngat fatiha rek salaatal fatihi ayatal kursi suratu ixlaas falax ak naas yi tëjee ko salaatal fatihi